أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين إلى يوم الدين لي موي تيرب سرين توبا بي تود منور الصدور تيرب ليرال خولي في لا تامبالي bismillahi ci tudd tur yàlla laay tàmbalee samay wax arrahmaani yàlla ki aji xéewle xéewal yu dijj yi arrahimi yàlla ki aji xéewle xéewal yu sew yi tàmbalee tur yàlla dañ koo fonk lool ba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne seen mbir yi am solo dee leen ko tàmbalee turu yàlla wax ne itam mbir suñu ko tàmbalewut turu yàlla du am barke mbaa barke ba day manqué kon nag lépp lu ab julit di tàmbali te du ak moy rek te du ak moy da koy tàmbalee turu yàlla arrahman arrahim daa bokk ci turu yàlla yu màgg yi arrahman mooy yàlla miy xéewal xéewal yu dijj yi arrahim mooy yàlla miy xéewal xéewal yu sew yi ndax xéewal moom benn mu dijj rek mbaa mu sew li ko sëñ bi ëpp firee nag mooy arrahman yàlla mi xéewal ñëpp ci àdduna nga xam ne day xéewalaali sax ñi koy weddee kay mooy arrahim nag moom da koy jagleel moom sëriñ bi ci am pireem xéewalug àllaaxira ga nga xam ne njëgaman rek la ko yàlla jagleel wasalla yàlla na dolli tedd nga allahu yàlla taxaala kawe na moom yàlla xalaa sayidinaa ci sunu sang wa mawlaana tey sunu kilifa muhammadin turam moo di muhammad wa alihi ak ñoñam wa saxabi ak ay saxaabaam wa sallama te mu dool leen wóolu wa baraka te mu dool leen barke salaatan dolli teral wa tasliman ak dolli wóolu wa barakatan ak dolli barke yeji xalu yooyu dana defe bihaa ci ñoom haada nadma wi le way muqaddamatan mu di ak njalbeen mbaa nga ne mu di ab ñamali min muqaddamatil jannati ci njalbeeni àjjana mbaa nga ne ci ñamali yi àjjana allati àjjana ja nga xam ne waxida digéef na ko almuttaqoona way ragal ñu yàlla amin yàlla na nga nangu ñaan ya rabbal aalamiina yow mi boroom mbindeef yi dafa julli ci yonent bi ne yàlla na yàlla dolli teraanga ak jàmm ak barke sunu sang sunu kilifa te mooy muhammad ak mbokk mi ko gëmoon ak mboolem saxaabaam ya te yàlla yàlla na yaatal teraanga ja ak jàmm ja ak barke ba ba defee ca saa téere bii muy ab ñamali ci ñamali àjjana bi muy taalif téere bii daa fekk mu sës ci boromam rek ba tax muy waxe waxin woowu di ñaan salaatoog salaamoog barakatu bii muy ñaanal yonente bi yàlla jaaree ca ba defal ko téeréem bii muy ab bunt ci bunti àjjana mbaa nga ne mu di ab ñamali bu bokk ci ñamali àjjana jooje nga xam ne moom la yàlla dig ña ko ragal ña ko ragal nag mooy ñi gëm ba noppi waaye ci jëfe la mu digle bàyyi la mu tere te jëmam rekk tax qaala wax na li wajihillaahi ngir jëm yàlla xabdullaahi jaamub yàlla ba xadiimu man may liggéeykatub ka nga xam ne aw salahoo àggale na ko lillaahi jëm ci yàlla wa zaakate kookee ahmadu mooy ahmadu bamba allazi ma nga xam ne laa yorta ji du yaakaar illa allazi ndare buur bi nga xam ne jaada tabe na bi fatxil murtaji ci ubbi lañu tëj kon kii wax day jaamul yàlla di liggéeykatu ka ko àggale ca yàlla te kooku mooy yonante bi te nee na li muy wax yàlla rek tax mu di ko wax turam nag nee na moo di Ahmadu Bamba muy jëmm joo xam ne yaakaarut ragalut ku may yàlla mi nga xam ne moo ko ubbil la tëj woon maanaam moo ko yombalal lépp lu jafe woon kon ki taalif jaamu yàlla di liggéeykatu yonante bi tudd ahmadu bamba li muy wax nag muy taalif yi yàlla rek a tax mu di ko def alhamdu xeeti cant yépp lillahi aji yey la ñeel yàlla allësi yàlla mi nga xam ne jaxala def na asadra xol xol mat boa aw saalil xibaadi muy lañu toppi cëri jaam ña fan jaxala temu defu mooy temu doon ko ne mi ngi tàmbalee ci sant yàlla mi nga xam ne moo def xol muy njiital mboolem cër yi mooy xol bi moom fu mu jëm rek cër yi topp ko jëm foofa kon nag bu xol bi defaroo cër yëpp ànd ak moom defaru waaye bu xol bi asaroo cër yëpp ànd ak moom asaru loolu yàlla yàlla mi nga xam ne moo def xol muy njiital mboolem cër yi nee na ci lay tàmbalee sant ko subhanahu sorelal naa ko lépp lu yelul ci moom rabban mbir mu muy ab bóor daxaa ba bu woote na li diini man jëm ci diine ka nga xam ne lëxoo ñeel na ko asiyaadatu càng ga allët yi càng ga nga xam ne fiyaa nekk na ca biiram al amanu kóolute te mooy mucc ak jàmm ne mi ngi tudd sellug buur bi nga xam ne gannaaw ba mu defee yolante bi ci coobareem muy sangub waa adduna ak waa alaxira defal ko càng goo xam ne moom faw rek day taqoog moom adduna ak alaxira ànd ak mucc ak jàmm dara du ko folli gannaaw ba mu defee loolu daa wax ne kii mooy sama ndaw na ko ñëpp topp na ñëpp topp diineem ji subhanahu sorelal naa ko lépp léewul ci moom wax woote moom jul xarsi mooy borom aras almajidu kay aji tedd almubdiu kay aji sos mbindeef yi almuwayidu kay aji delloo mbindeef yi gannaaw ba ñu raafee innahoo naka moom yajoodu dana tabe dafa dellu tuddaat sellug buur bi dana buur la boo xam ne lépp lu am rek moo ko amal te it bu lépp demee ba raaf mel ne dara mës am mooy amalaat lépp muy dekkal ñépp ña dee woon mel ne mësuñoo ñàkk loolu moom rek moo ko man kenn mënu ko te it mooy boroom aras mooy ku tedd ka man mooy yàlla mi nga xam ne xalaqa bind na al insaana nit wal jinn ak jinne wal jinna maxan boole seen li yaa abuduhu ngir ñu jaamu ko rëhaban ci ak ragal wa tamaxan ak ci ak yaakaar mbaa nga ne xemmem waaye yaakaar rek lañ ci jublu dina yàlla moo sàkk nit ak jinne ndax ñu gëm ko wéetal ko te boole yaar ragal ak yaakaar ragal mbugalam te yaakaar yërmandeem yooyu yaar nag moom la jaam war a boole tumma salaat topp doli teral wasalaamu ak dooli wóolu maa jalaba li fekk ñor dina li jëme ci man almanaa mi bët ya man yàlla mi nga xam ne sala ba rekki na almanaa fi njariñ ya lii ñeel ma al rasul yàlla nekk ci yonante ba azahiri ke aju dëddu al mushafahi kadi kuy nangu am ci noom mursidi man mooy aju jubal ka nga xam ne yuhibbu fa dana ko sopp lil an faxi jëme ko ci yàlla ma gën a jëriñ ne yàlla mi nga xam ne dafa sax ci fu njariñ nekk rek mu andil ma ko lépp li ma bëgg it mu ñoddil ma ko mu ñëw du jar ma di ko yootu loolu yàlla ma ko saxalal yàlla mi ma saxalal loolu nag yàlla na saxalal teraanga ak jàmm yonenteem bii nga xam ne daawanaan gannaaw lépp lu bokkut ak yàlla dëgmal yàlla te bu ëllëgee moo ni tinu te bu nu tinoo ñu tinnu te it képp ku ko sopp te yàlla tax moom yonante bi mu daal di tegtal yàlla wan la fa ngay aw ba àgg ca yàlla mi nga xam ne moo amee njariñ te man koo joxe xalal la si yàlla nekk ci ka nga xam ne jaa a dikkee na bi ànd dunyaa ci nag àdduna sirin ab kaso la li mu'mini ñeel aji gëm bi xëyri sunu yaa ci lu seetee sayidina te mooy sunu sang muhammad ni muhammad yàlla nekk ci moom nag salaatu man teralu buur bi nga xam ne xad fàkka xob bi na si jini sama kaso bi safaayin ci ak sell wa amanin ak wóolu mu ne nag yàlla mi nga xam ne bu àdduna nekkee ab kaso it man day dama ko soppil muy ajjana ci man ba bàyyi dem ci ajjanaam joojee ma ànd ak sell ànd ak mucc fu man di toll yàlla mi ma defal loolu yàlla na dolli teraanga yonent bii nga xam ne ba mu ñëwee moonu wax ne nu adduniyaa sijjunul mu'mini wa jannatul kaafiri adduna kasoog jullit la àjjanay yéefar la tamuy wax ju wér ju xóot ju leer ndax li tax adduna di kasoog jullit mooy jullit moom lu mu am ci adduna lu mu neex neex rek boo ko seetee ci fi muy mujj muy àjjana day mel ne kon fi mu nekkoon fii ci adduna moom kaso la woon ci moom yéefar bi nag moom li tax adduna di àjjanaam mooy boo seetloo sawar ba muy muccee bu ëllëgee kon lu addunaam naqari naqari ci moom rek mel na ne mu ngi woon ci àjjana ci boo seetloo fa muy mujjee muy sawara ndax sawara moom dara melu na dara jegewu ko sax haza jàppal li wa xayrul xilmi ngeen ji xam-xam yaa zawil xuqooli yéen waroom xel yi xilmun mooy xam-xam muqarribun buy aji jegeñale li man jëm ci ka nga xam ne min hu tukkee na ci moom an nuqoolu toxal yu wér ya an nuqoolu jam hu naqlin la an naqlu toxal mooy jëlee ci ka ñuy jëlee ci moom kal aqdi niki tawxid wal fiqi ak fiq wa kat tasawuf ak niki tasawuf wa kulli ilmin ak bépp xam-xam yëf yi bopp dana dikke bi manaafiha ci ay njariñ kon daal nee na ne gannaaw sant yàlla julli ci yorante bi nag mi ngi lay xamal ne xam-xam bu am njariñ moo gën lépp lu dul moom ndax mooy cosaanal texe maanaam mooy fondement bi ñi amee texe xam-xam ba tax ñuy wax mooy xam-xam bu lay tax a jege sa boroom xam-xam bu lay tax a jege sa boroom nag mooy xam-xamu diine te xam-xamu diine ñetti xaaj la muy xam-xamu tawxiid ak xam-xamu fiq ak xam-xamu tasawuf xam-xamu tawxiid moo lay jàngal ni nga war a gëmee lépp lu ñu war a gëm xam-xamu fiq moo lay jàngal shariha ak lépp lu ci aju maanaam lañu la digal ak lañu la tere ak la nga sañ ak la nga sañut lépp moo koy àtte tasawuf nag moo lay jàngal na nga war a sellale sa digganteeg sa boroom leen lu ne nga sàmm ca teggin ba sa boroom gërëm la ñetti xam-xam ñii mooy xam-xami diine moo gën ci lépp luy xeetu xam-xam waaye nag bépp xam-xam bu lay tax a géeju ci itam te daal di bokk ci yi am njariñ lool lool lu mel ne yi ñuy tuddee ay jumtukaay mel ne naxu ak sarf ak luxa ak balaaxa xeeti xam-xam yooyu boo ca géejoo day tax nga gën a mën a jekku alquran ak sunna gën a mën a jekku tawxiit ak fiq ak tasawuf loolu moo tax kon mu daal di ne kala wa kulli ilmin ak bépp xam-xam yëf yi bopp dana dikke bi manaafiha ci ay njariñ kon daal nee na xeeti xam-xam yi moom bépp xam-xam bu am njariñ rek dugg na ci waaye nag waaye nag xam-xamu tawxiid ak fiq ak tasawuf ñoo jiitu muqaddamatun lii luñ jiital la maanaam lii buntu téere bi la tàmbalib téere bi la yaa ayuhal gaadi yow aji xëy ji ila taxallumi jëm ci xamlu xëga jàppal wasiyati sama dénkaane waraaxe te nga sàmmonteeg kalim yi samay baat yow mi xëy jóg ne daay jàngi jàppal bu baax dénkaane bi ma lay dénk te sàmmonteeg bu baax baat yi nga xam ne moom laa lay bëgg a wax muy uqsut na nga jublu attax lu ma xamlu li wàcc rabbika ngir jëmmi sa boroom te kon kon nga nekk sororal awliya di mbégum wàllu ya wala xulamaay ak way xam ña boo jógee ba ne daay jàng yi ne sa yéene sell ci yàllay kese-kese tax laa jóg di jàngi loolu boo ko defee ñu baax ñëpp bëgg ci yow muy boroom xam-xam yi muy wàllu yi laa tatluban bul sàkku mujarrada riwaayati lu ñu rafleeli nett li maanaam nett li kese rek bal li fi nekk dumma na nga tàpp xilmaxaa xam-xamu riwaaya illa diraayati jëm ci xàmmee nee na bul sàkku xamu kese rek mën koo nettaliwaat ngay fexe ba muy xam-xam bu ànd ak leer bu ànd ak ragal yàlla xam-xam boo xam ne daal day tax ragal yàlla tax la amuk teewlu ci màggaayu yàlla amuk xamaku xàmmee xam-xamu diraaye da ngay sàkku boobu te bul sàkku rek xamu kese goo mën a nettaliwaat laa taqsut bul jublu istimaalatal wujuhi sàkkoo jengal kanam ya lakka jëm ci yow la daa bat ika fasak tàmbali za taw jihin mbirum ngay boroomu jublu daa min taw ji daa max naam tawa ju daa wax ne bul bëgg mukk rek boo amee xam-xam nit ñi dëgmal si la ndax xam-xam bi nga xam loolu rek mooy sa yéene ci njàng mi déedéet balli fi nekk uxsut na nga jublu alxorooje génn ga min dalalin ci ak réer waa ismatan aku mucc min dararil idlaali ci lori réeral daa wax ne da ngay jubloo génn ci réer mucc itam ci réeral keneen da ngay da ngay sàkku ci xam-xam bi ngay jàng daal mucc ci réeral ak réerale maanaam mucc ci sànku wala sànk keneen ndax boo xasee réer rek mën naa am nga réeral keneen kon nag da ngay jiyéene ci xam-xam bi mucc ci réer mucc ci réeral keneen ba tey mahma talabata saayoo sàkkoo alxilma xam-xam aw si waaw wala ludul moom lil naf si ngir bakkan rek wal maali ak alal woo ma ak la nga xam ne tax waaxu da nga ko sopp fa bi ata kon jaay nga oxraaka sa alaxira bi duniyaa jëndi àdduna isan boobee fa firra dawal min haza ci lii mata taraaka saa yu la gaaree nee na saa yoo dee sàkku xam-xam mbaa leneen lu baax te yàlla taxut xanaa sa bakkan rek mbaa àdduna rek mbaa alali àdduna mbaa sa bànneex rek nga ca topp mu ne kon xamal ne yaa ngi jaay sa àllaaxira ñu lay fay adduna mi nga xam ne mu ñàkk solo la loolu nag saa yoo ko yëgee ci sa bopp rek na nga gaaw daal di koy moytu daal di gaaw génn ja amma isa tawajjahat daal ndéem dëgmal si na xuloo bu man xooli ña nga xam ne xaa sartahum jamonoonte nga ak ñoom ilee ko jëm ci yow min ahli zamani ñooñ jamono min xayri qasdika ci lul sag jublu faxalim kon na nga jàngal man ka nga xam ne tara rot na tara mooy cosaan waaye waaye tax ñu def tara ileeka jëm ci yow taali man ak jàngal yàkku fu kook dana fekk bataran rëylu nee na nag bu fekkee na ngaa jàng ba noppi am xamaku xàmmee yàlla dogal nag waa jamono ji dëgmal si la kon su boobaa xam ne yow sakku woon loolu waaye yàllaa ko dogal nag kon na nga leen jàngal ngir yàlla jàngal goo xam ne dara ci rëy mbaa gis sa bopp du ci am nga leen jàngal rek jàngal gu sell ngir yàlla wala sim te nga taxoo alxasiyata ragal yàlla watta adduba akuk teggiinu maxat tawaadu ànd ak toroxlu yasuruka kon siyaari la al uddaba way xam ña ak wala way teggiinu ña nee na foo toll na ngay taxoo ragal yàlla mooy yëg màggaayu yàlla foo toll ak bari teggiinu foo toll woyaflu foo toll na nga taxoo yooyu boo ko defee ñu baax ñi daañu ñëw di la siyaare waalam na nga xam bi am na xilma ci naka xam-xam wala amaal ak jëf ya ka adabi niki teggiin tuk si bu ka danañu la fàggul alkamaala mat ga mooy nag na la wóor ne kat yett yi rek mooy tax doomi aadama mat mooy xam gu am njariñ ak jëf ji yiw ak i teggiin xam-xam ak jëfe ak i teggiin yett yi daal mooy matal doomi aadama man lam yahus koo xam ne laqut chey an dara min haasihi ci yile walam yuxibahaa te sopp leen fa innahu naka moom dalama tooñ na an nafsa boppam an nafsa bakkan ba mooy boppam rek nee na yett yi moom koo xam ne amoo leen war nga leen a bëgg te di leen wut waaye neen yett yi koo xam ne amoo ko te bëggoo ko sax far kooku moom xamal ne asaru na te moo tooñ boppam yaa saa ili yow sama aji laaj xan ay yu diin walis ana jan diine yustafa la dee fi tànn xindal illaahi fa buur ba ma ne la xëka jàppal diinal mustafa diine ka ñu tànn salla yal na dool tedd nga allahu yàlla xaalihi ci moom bi salaami ànd dooli woolu fii xis bi ci biir kuréelam ba kama maxa naka mu fare malaa mi sama yeddeel yow mi laaj ba xam jan diine moom la yàlla taamu jàppe ko muy diine nee na ma ne la jan diine képp la yàlla jàpp ni mooy diine te mooy lislaam yow mi laaj daal jan diine la yàlla jàpp muy diine tontu li mooy rek diine yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom rek la yàlla jàppe diine ay xin wóolul bi ànd diine ci naka diine hindallaahi fa yàlla islaamu naa mooy sunu lislaam ji laa diinu di malaahin du diiney boroomi po na la wóor ni daal diine ji nga xam ne moom la yàlla jàppe diine mooy lislaam dong ndax wa man yabtaxi xayral islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min alxaasirina ak inna diina xindallaahi al islaam idi ngir kullu man képp koo xam ne daana diine woona bilaahu ci ludul moom turida kon dàqeef ko wala yarida te du rot lil jinaani jëm ci àjjana yi abadan mukk nee na képp ku diine woo diine ji bokkut ak lislaam yàlla du ko nangu dañu lay dàq te doo dugg mukk àjjana xaakum kon nag jàpp leen nizaaman aw way naafi xan wadi aji jëriñ muqaddamatan wadi wuñ mën a tàmbalee wala nga ne wadi wuñ jiital fii diini maahen ci diine aji far kéefar rabbuhu ku boroomam xadd xaddamahoo jiital na ko kon nag jàpp leen taalif yi nga xam ne maa leen ko ci taalifal mi taalifu am njëriñ boo xam ne boo bëggee xam diine yonante bi mën nga cee tàmbaleem njàng jëm ca kaw sumaatuhu aw turam nag mu nawiru sudóori mooy aji leeral dënn ya mbaa aji leeral xol ya la dal manasili fa wàccukaay ya waxinda dóori ak fa kër ya téere la buy leeral xol yi ci béréb yu ne moo xam ca kër ya la moo xam ca teeru ya la téere daal buy leer téere la daal buy leeral xol ya ak dënn ya ya ayuhan nabilu yow aji xellu ji daa bàyyil maa la nga xam ne yan fadu dana jeex wa baxite nga sàkk mu nan ay mébét laatan faddu yooyu duñu jeex fii abadin ci faaw neen yow mi yow daal da nga fi bàyyi adduna mi nga xam ne moom day jeex lépp luy jeex rek amul solo da ngay sàkku yàlla sàkku ngërëmam ak ëllëg ji nga xam ne du jeex mu ko mukk mu laa si man bir mu ngay aji taqoo sunnata xayri rusuli sunna si ngën ji yonante yi alayhi yàlla nekk ci moom xayru salawaatil mursili ngën ji terali yàlla mi aji yónnee nee na boo bëggee sàkku yàlla ngërëmam nag da ngay taxaw sunna rek ko taxaw sunna sinante bi rek xamal na yaa nga ci yoon wax id ngir fitti baax yi xaa ci ak toppam takkoon ngay nekke saaliman di aju mucc wa fixtilaa fi xaa ci ak juróom moom takkoon ngay nekke zaaliman di aju tooñ sa bopp nee na saa yoo toppee sunna rek xamal ne yaa nga ci yoonu mucc te boo ko wàccul da nga mucc da nga am ngërëm saa yoo jiyoonteeg sunna rek xamal ne tooñ nga sa bopp te wàcce goo yoonu safaan ba mu yoonu sawara fal maahiru aji ñaw ja allabibu ja aji xellu man mooy ka nga xam ne yanzur dana xool fii amrin ci ndigal wa naxyin ak tere daaka loolee xayrul xiraf yi mooy ngën ji métier nee na ki yeewu te yeewu daal mooy ki nga xam ne dana jàkk ndigal ak tere parce que yéene sax ci ndigal di ko def saa yu nekk parce que yéene sori tere du ko jege mukk mukk ku sax ci jëfi ndigal bàyyi tere daal ca dëgg-dëgg kookaay yeewu ca dëgg-dëgg mooy yeewu fa kullu man képp koo xam ne nadara xool na fi duniyaa ci àdduna bilaa tafakkurin ci lu xalaat fa huwa moom xadd ko bi la jéngeef na ko bihaa ci moom len àdduna si daal ni mu doy waar ak ni mu ñàkki solo képp koo xam ne nga ko jàkk rek jàpp ko te koo bàyyi xalaatoo ak mujjëm ak na muy demee xamal ne kon moom saytaane jéng na la ci àdduna ba noppi xamal ne kooku daal àdduna xas na ko jéng misaalu xaa misaalam xajuusatun am màggat mu jigéen la dani yët muy aji suufe fii ak xafiyatun tey aji nabu fii asuubin ci ay malaan nafiisat ñuy aji gànjaru ko defee yaxsibuha dana ko jort al ahmaqu aji dafay ja xiina lam yara ci waxtu wa nga xamee ne gisut siwaa libaasiha ndare koddaayam la allësi la nga xam ne xadd xay yara gëlëmal na da koy jort rek xaaniyatan muy jong ma mustadrajan mbir muy ku ñu jay mi xubbiha ci ak soppam bi xitbatin ci ak labat turdi kook dana alak allësi ka nga xam ne ahabaha sopp na ko daa waxoon ne àdduna képp koo xam ne jàpp nga ko rek xamal ne yow woote àdduna jéng na la ba noppi mu ne misaalam daal mën nga koo misaale màggat mu jigéen moo xam ne dafa ñàkk solo lool waaye nag dafa waaj sol ay yére yu foor a foor ku ci xamul dara nag bu ko séenee day defee ne jongama la joo xam ne daa toll ci digg waxambaaneem rek bu ko defee nag moom daal taxaw temm ci fas ko yéenee labat fas ko yéenee takk nag mu jaral ko lu nekk ndax loolu la defee ne jar na ko xata isa mabtaza ba nga xamee ne futti na maa la nga xam ne xad labisat soloon na ko rek wajadaxaa mu fekk ko mu faadatan muy aji rëy biir xat xubisat koo xam ne tëjee foon na ko mooy làqee foon na ko xawara xay nin tey aji pat bët daata chey bin tey boroom bi jaaw munti na tan tey aji xesaw bu saaquxaa tifliitam wa ka tuxlu bin mi ngi mel ne mbaalaa mbaal mustax janatan tey lu ñu joonlu marha xaddibinte aji ketambe mbarum bët daata xalqinte borom bind jana bin buy aji faqiran wala buy aji gàtt zahiruha zahiram sa yaxuru dana mën a wor kulla mudnibin jëpp aji bàkkaaro nee na bi mu séenee àdduna mu mel ne jongama jooju di ki tuyu am màggat la rek mu defaru waaye du dara ba mu ko labatee nag ba am ko nag ba futti ko nag di ki tuyu màggat la muy ñaawa ñaaw moo xam ne bët yi dafa pat mu bi jaaw ba weex xesaw xet gu naqaree naqari tifliit yi mel ni mbaalaa mbaal bët yi bët yi pat nga waxoon da caa boole ketambe mbari bët yi ketambe mu nekk boroom bind bu gàtt bu ne fëtax rek noonu nga xam ne saahis rek moo ko naxoon waaye ba mu ci àggee dëgg dëgg dana xam ne kii daal jarutoon dara dara dara boobee nag xadda mu mat xalaa yëdde yi ci yaari loxoom ya daa na daamati mbir mi borom mu reccu min kulli maa ci lépp loo xam ne adaama xoo saxaloon na ko fii maa ci la nga xam ne mada wéyoon na nee na ka gisan màggat mu jigéen moomee defe na jongoma la sonn ca lool mu jaral ko lu ne ba mu demee ba am ko nag gis ne moom kat mooy safaanub jongama jam yaakaaroon su boobaa day mat ay baaraamam di wiccax di rëccu rek lu mu ci doon sonne ak lii lu ko jar adduna it nee na noonu la boo ko dee xool nii ci kaw day mel ne dara la mu jaral la lu ne waaye boo ko toppee dëgg-dëgg ba sa kumpa dañ da nga xam ne jarutoon dara dara su boobaa ngay rëccu ak a mat say baaraam di wiccax te fekk booba lépp wéy na rëcc rek fa des waaye nag nee na loolu ab dof lay dal ka yeewu nag moom loolu du ko dal moo tax mu ne amal labibu ndaal aji xellu ja fa mata laaqaaha saa yu taseeg moom yaftash mu gëstu ko wa in raa ndeem gis na al ada lor ja alqaaha mu wàcc ko mooy mu sànni ko ku yeewu nag moom nee na du dugg ci mbir mu jaral ko lu nekk te xamul lu mu doon moom bu ko gisee rek daal di gaaw fexee xam ba xam jar naa toppam jërta toppam déet bu gisee ne jërta topp rek mu daal ci génn fasaasa wa mattaluha misaali nañ ko it bixtilaa min naa imi ci géntug aji nelaw man baaxaxaa ku ko jaay zafira mu tuufu bil xanaa imi ci ay mànga ba tey nee nañ àdduna des na ko misaale géntu kuy nelaw maanaam nit mën nay nelaw di gént di gis lu rafet rafet du neex ci moom bu yeew de du gis dara adduna itam boo ci nekkee noonu lay mel day mel dara la waaye day jekki-jekki dundam jeex mu daal di faatu mel na rek gént la woon kon nag ku ko jaay jënde ko alaxira rek kon jënde na ko lu ko jar te du ko rëcc mukk aqbalat dëgmal si woon na adduniya adduna ilee jëme ci man xablu ca bu jëkk wa bi atuha te ma jaay ko wasaala te dañ xànni walis ma alkablu jéng ba nen àdduna dama dëgmal si woon waaye man ma bañ koo faale rek jaay ko jënde ko ngërëmul yàlla mu daal di may bàyyi ba tey gàllankooruma wa àdd barat te mu wanaat gannaaw bax daxaa ci gannaaw ba xan yeewalis ma wala mu amil te musuma jeng laxaa jëm ci moom li kaw ni xaa ngir mu nekkam daara bu lamin di kërug ay lëndam in àdduna ba ma dëgmal see itam gannaaw ba daawal batiku wanaat ma gannaaw waaye man dëgmal si gaag wan nga gannaaw laa yemale mosuma ko dëgmal benn yoon ndax xam naa li mu doon wa aqbalate mu dëgmal si waat bax doxoo ci gannaaw ba lii jëm ci man wa inni te naka man aqbaltu dëgmal naa lillahi jëm ci yàlla wa abqaate mu desal man ni sama xeewal àdduna gannaaw ba mu wane gannaaw itam daawal bitikuwaat ñëwaataat mel ne ku ma dëgmal si waaye man daal ba ma dëgmal seeg ba ma wane